man nag soo ma sañoon dañuy laaj euh, oustaz ba pare. ci takki suuf bi ba noppi. mu définir lan moo moo la gën a. waaw définition wu takk naa la yoon bis si mën nga koo laaj. soo doon définiral takk suuf takk suuf mooy lan. waaw jërëjëf Ndoye xam nga sëy dafa bëri ay façon bari na tey ku yor jabar fekk trois fa ne mais yoroo jabar parce que jaarul ci yoon dafa am ay façon sëy yoo xam ne yoon dafay wax ñu dindi ko ndax wérul takk suuf moo di tey yow Ndoye baan nga ñëw fii ñu may la fi jabar biñ la mayee jabar am na ay seede mais danga kompaloo ñoom ne leen bu mu siiw kon sëy bi yow la ñoom ci sëy charia dafa bëgg mu siiw parce que ëllëg a tax nga nëbb nag yaag seede ya ne bëgguleen leen mu siiw boobu sëy dañ koy tas suñ ko yëgee dañ koy tas buñ la jébbalee ndaw si ba pare ñu doog ko yëg dañuy tas sëy ànd ak yow ak seede yëpp dañ leen di yóbbu ci yoon ñu yar leen parce que wàcc yoon. su dee jànq ak su dee jéeg. ñëpp a ci yem sëy moom amul nëbb. sëy dañoo bëgg mu siw du aada nag waxuma aada charia laa wax du du aada charia mooy yoonu yàlla rëdd jox ko yonent yi ne ni ci jullit di jaar yi nii donc ku wàcc yoon wi dañ ngay delloo ci yoon wi loolu la ñuy tuddee nikaaw sirri mooy sëy bu ñu nëbb dañ koy dindi dañuy teppi sëy bi ñu ne waaw bu fekkente ne nag sëy boobu am na ba am trois ans quatre ans ñu ne boobaa dañ koy wéel ànd ak yar jëkkër ji ak seede yi sëy bi siiw suñ ko yëgee nag te yàggul dañuy dindi sëy bi moo xam jébbal nañ la ndaw si buñ la ko jébbalee da euh, dañuy dindi sëy bi waa nga ne kon canu ndaw si nag ñu ne ñu seet la nga waxante woon ak moom noon ko dinaa la may deux millions suñu dindee sëy bi fekk ñu jébbale ko da nga koy jox deux millions mu jeex waaw bu fekkee waxaale woo ak moom dara nag dañuy dindi sëy bi ñu seet nag moromam it ñan lan leen leen di canee nga jox ko lu toll noona su ngeen waxaale un million wala deux millions jox ko su ngeen waxaalewul dara ñu ne ah, xale bu mel nii de ñaari koo takk yaa ngi koy jox deux millions wala un million wala cinq cent mille yow ndooy baan nga jox ko loolu ànd ak sëy bi day dañ dañ lay jël nag yow mi takk ndaw si ak seede yi ak ndaw si yóbbu leen ci kanam tribunal ñu àtte leen nan la leen di teg ban peine peine boobu prévoir ñu ko newuñ wuñ téeméeri yar newuñ wuñ cinquante ne wuñ dañuy bàyyi procureur mooy seet lan la lay teg moo xam dix jours la lay tëj door la cinq yar wala dix yar mais kooku mu ngi àtte ci procureur bi rek la mbir mi aju lii mooy charia ci takk suuf